te bu ñëwee safar bala gee woote lépp mu dégmal ko ki nga xamante mooy ku tedd ki dañoo fa ne mbëri ay dof la mais duñu ay dof de duñu am jox nañ ko sëñ sëriñ tubaa jaaraama maam Cheikh Rahima Fall ñoo ngi sant yàlla bu baax di sant yàlla bu baax comme que fekke waat nañ ko ci jàmm ak salaam te kenn manqué wul yàlla nañ ko yàgg fekkee te yàgg kaa def di leen ñaanal yéen ñëpp yéen yàlla defal leen jàmm ci seen liggéey bi ngeen nekk ndax man kuy wax lu rafet rek mbaa ngay jël kuy wax lu rafet rek daf may neex daf kontaan ci loolu. dëgg déggoo ma de. Uh-huh. yaa ngi wax ay wax lu rafet. Uh-huh. wala ngay jël kuy wax luy rafet. dëgg la da nga may neex. Uh-huh. moo ko moomoon waaye moomatu ko. waaw ki ko moom léegi. mooy doomu sëriñjaay bi. Makan Makan at naar bi. ay saytaane lan léegi ah. ñaar ñooñu waaw yéen ñi lépp tubaarikàlla macha allah léegi nekkatu leen ay saytaane ñu baax ngeen lan rafet ngeen di jël lu baax ngeen di jël yow sax euh, ah, lu baax nga doon jël ah. waaye léeg-léeg ma gis na nga doxole waaye damay gis nga da ngay rafetal waaw saxal ci rafetal bi saxal ci rafetal bi di kontaan ci yéen ngeen fekk ma fii ci golf kër Balla Gaye 2 son ma fekkee doon ne ma accam soon ma fekkee doon na ma liiru jaan loo fiy def ndax soon ma fekkee wala maa ngi sama kër ngeen ma fekk sama rakk la hmm. sama frère di kontaan ci yéen tam bu baax a baax di kontaan ci màggal gi hmm. ñu jub euh, dëgmal hmm. ñu nekk ci weeru safar te xam ngeen tey safar dafa bari lool ñëpp ay safar fi mu ne toogu ma ma toog ndax euh, bëgg naa teewal ñu ne léeg nga dégg nii noonu lii lu doo safar ay ree daf may jàpp dama leen xam ni man euh, euh, li ma war a def samay rek ma koy defal tey man su ma xewle woon may safar keneen di safar damay bàyyi sama safar dem ci safaram ndax bëgguma ku mer dëgg la parce safar maam góor laa jóge ni maam góor taalibe sëñ Babacar góor yombul moo doon fa laa jóge ni waaw waaw fa laa jóge suuf nga a faa dem te waxoo ma ko waaw da woon waaw euh, xam nga tey li mu tombé safar Balla Gaye bi moo tax fa laa jóge nii léegi léegi te Alioune Seye tamit dafay safar tey Balla Gaye mhm. lii mu def du na guléet kenn du na guléet taalibe sëriñ Touba la taalibe mhm. sëñ Bas Baara mhm. te yàgg na koo def tey mu ñetti gàtt séddal lépp jaamu yàlla yi. def ay berndeel. def ay berndeel. kon nag nañ ko ñaanal yàlla defal ko jàmm. ku yemu ne ko jàkk te bañ koo piis. taalibe sëriñ tuuba la. dëgg la. taalibe sëriñ Touba nag. soo ko fekkee ci yoonu sëriñ Touba muy liggéeyal sëñ bi. ah ku yabu ne nga ko jàkk te bañ koo piis. waaw. nu mu mel sëñ bi nu mu am sëñ bi. ñun nunu mel sëñ bee lu am sëñ bee kon nag sant yàlla yàlla nañ ko yàgg teewee te safoor yi di ñaanal safoor yi ne leen mm. nañuy daw ndànk dal ndànk ci dañoo jëm ci màggal ci màggal ginu jëm nag mm. ah dañoo dem pour sàkku ji ay ñaan ak ngërëm mm. demuñu fa pour jaay taar demuñu fa pour dañoo dem pour sàkku ji ñaan dañoo war a dem pour toroxlu sooy dem Touba da nga ko war a jàpp ni sooy dem Màkka sooy dem Màkka da ngay toroxlu sellal sol euh, lu rafet lu simple toroxlu waaye nekk fay sol yi jasinière di sànceeku sol ku su meek jigéen ñeeg góor xool ci jongama ji jo xale yu xale yu góor yi xale yu jigéen ñi ñëpp laa wax mm-hmm. am na ñoo xam ne xam o jigéen ñoo xam dañuy dem pour pour jaayu ji mm-hmm. waaw am góor ñoo xam ne dañuy dem pour wuti soxna mm-hmm. màggal moo leen yóbbu dëgg la suñu demee nañ toroxlu nga ngay gis kuy dem màggal di yóbbu ay wëlis. waaw wëlis yére. solo ko summi rek. Mm. loolu baaxul. <laughs> waaw bu loolu baaxul abu <laughs> ah nan ko rafetal. dañuy dem pour sàkku ci ñaan. Mm-hmm. su Tiwaawoon jotee ñu defee ko noonu. Njaasaan ñu defee ko noonu. tey ba Ñaseen ñu defee ko noonu. kër maam Limaamu. dëgg la Bokkunta Njaasaan. Mm-hmm. Cenaba mm-hmm. Laayeen lépp benn la. ndax sëñ bi rek moo ñu ñor. at yàlla ak yonante bi yàlla ak yonante ñu ñor at sëriñ xalifa diine yëpp yàlla na fi yàgg te wér sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér sëñ Muntaxa fi yàgg te wér sëñ Abdou Karim Mbacke yàlla na fi yàgg te wér euh, sëñ Abdou Karim yàlla na fi yàgg te wér xalifa Baye Fall yi yàlla na fi yàgg te wér mhm. waaw mooy sunu sëriñ sëriñu Adama Seen fii la dëkk Géejawaay taalibe sëñ Abdou Karim Mbacke mhm. ak sa patron ba sëñ Fallou Seck Touba Xayra sëñ Abdou Karim loo koy naxee naxee ko sëñ Abdou Karim sëñ Fallou Seck looko koy naxee naxee ko sëñ at sëñ Adama seen moom loo koy naxee naxee la sëñ Abdou Karim ah. maam Cheikh Rahima Fall waaw te da ngaa murite lool liiru waaw ñun ay taalibe lañ da li waaw mooy suñu cër ndax dañoo ci dañoo nekk ci wàccaay mm-hmm. waaw dañoo dañoo dañoo nekk ci dañoo nekk ci ay wàccaay mm-hmm. wàccaayu màggal gi mm-hmm. ñu nekk ci 18 safar ñun dañuy toroxlu kenn dàq ñoo sol ay jasineer dëgg la de. waaye dañuy liggéeyal sëñ bi sànq da nga ma wax ne sànq dama ne la dafa am ku ma ne woon. liiru sa safar yow kañ la. waaw ne ko man su sama rakk yi suñu safar rek mel na safar naa ndax taaliba ndax man mii ni nga may gis nii. barki Cheikh Ahmadou Bamba. billaahi wallaahi wa taalaahi. lu ma am ci màggal gi la jëm. ñi xam ne mënu ma lim seen tur maa leen di jox paasu màggal. barki Serigne Fallou Mbacké. billaahi wallahi taala maa leen jox paasu màggal. waa léegi nag tey su yooyu may def noonu tey. tey su xale yi safaree sama rakk yi di safar. mel ni maa safar. benn rek te ni ñuy dem euh, Touba. dañuy dem pour liggéeyal sëñ bi kon yàlla na nu yàlla defal jàmm ci réew mi yàlla na fi jàmm sax lu nu ñaan ci màggal gi ak ci weeru safar bi yàlla na ko yàlla nangu nañuy wax lu rafet tey def lu rafet di yéenante jàmm da bàyyi féewale yi. di toj ay dëkk di jaxase ay dëkk. du yoon loolu baaxul. kenn war a toj ab dëkk. Guédiawaye nag kenn mënu koo toj. ah am na toj de. am na ñaar xale yu fi nekk sant na toj de. Hmm. Guédiawaye moom yàqu na moom léegi. Guédiawaye kenn mënu koo toj. Guédiawaye kenn mënu koo jaxase kenn mënu koo toj. lii raam nag ñàgg la jëm waa gis nga dégg mu la wax. Hmm. samay rakk dañoo màgg. Hmm. man kilifa laa. ah ñëpp sumay rakk lan. am na yoo xam ne ay xale suñ koy wax wala ñu koy def dama leen di bàyyi ak xale yi waaw seen morom yi man waxuma benn xale bàyyi naa la ak yàlla barke Sëriñ Fàllu Mbakke xale bu ma tooñ ma dajeeg yow ñu jàkkaarloo nga tooñ ma ma summi sama yëre teg fa la ñu jàkkaarloo ñu jëflante barke Sëriñ Sàllu ma non non sama rek duñ ko nangu waaye man laax nii am naa fit boobu am naa non comprendre nga am naa am naa fit bi am naa sañ-sañ du ma ragal géej waay ragal dëkku fii mm. géejawaay ragal dëkku fi géejawaay ay ragal dëkku fi géejawaay ay jàmbaar a fi dëkk ay gaynde ñoo fi dëkk ay bañkat ñoo fi dëkk ay kilifa ñoo fi dëkk ay champion ñoo fi dëkk géejawaay il a tout tout il a tout géejawaay il a tout barki Sëriñ Bamba Mbak géejawaay il a tout ah away tey soo dee géejawaay su dee champion yi ah. fi fekk baax Balla Gaye ba muy am vingt cinq ans la ñu indi roi des arènes biir géejawaay ñu koy tiitaroo di ko ndamoo te jamono yooyu ki fi nekkoon hmm. koo ko wax mu ne ay conseil laa soxla hmm. di wutub ah, xarit déedéet mu ñëw ko quinze ans la toog daanu Balla ñëw daan ko tey euh, euh, ñi fi nekk roi des arènes yëpp dañoo war a sant Balla Gaye ñi roi des arènes jaar seen loxo yëpp dañoo war a sant Balla Gaye ndax tey jii hmm. su woon Balla ah ñoom est-ce que jot duñ duñ si jot kon na dañ ko war a sant di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te may ko wér soo nee Balla Gaye dama naan la koy chéri buri bàcc li bàyyi Mouhamed bàyyi Serigne Saliou mm. magi saa kees rakku liiru jaan koy Balla Gaye de empereur weeru des salaires kan mooy empereur bi loolu du question te am peut-être xam Balla Gaye kaddu gi neex na xam fu ma dugg ak moom tuuti parce que moom mooy les monuments de Guédiawaye buñ gisee barki démb la da guerre toog ci émission ba ñu laaj ko ci diggante ak Balla mm-hmm. am communication ba mu si def mm-hmm. ñoom ñaar loolu xam nga yéen abu du la wax saytaane nga ndax ndax dama la ko doon wax changé nga léegi ne ko ko la da guerre noonu mu waxee noonu la war a waxee ndax xamul tax mook Balla Gaye ñoo bokk seen Casamance. dama gisee ñoo bëggante ñu ñaar. ñoo bokk seen farabara. Mhm. farabara gis nga euh, diggante boobu ku ci wax. dëgg la na nga xam loo wax. Mhm. ndax euh, tey Balla Gaye laaj nañ ko ci ba laaj dégg wax la dëggee barki Demba Ndiaye laaj nañ ko ci dégg nga lim ci wax. kon nag ku ciy wax na nga wax loo xam. problème amul problème amul. ñàkk waxtaan la rek. waaye problème amul. ñi ci wax nag. di jaxase. at di ñi nga xam dëkkuñu géejaway. waaw sunu sañoon jàmm du am géejawaay kon nag j'arrête ñooñu laay waxal j'arrête ñi nga xam dëkkuñu géejawaay. ñan la ñu ci ginnaaw. ñan la booy su ma bëgg loolu sa yoon nekku ci. bis bu wax seen tur jotee. man maa koy wax du yaa ma koy wax. non non arrête. est-ce que dégg nga ma la ma la wax Abu. yaa ngi may déglu Abu. ñi nga xam dëkkuñu géejawaay bëgg a jaxase géejawaay. loolu du fi amee du ma ko seetaan. man awma lu may tiit. je peur pas barki Serigne Bamba Mbakke je peur pas billahi wallahi tallahi loolu laa bëgg ñooñu je peur pa loolu laa bëgg loolu laa bëgg ñu arrêté ñooñu bëgg a jaxase géejaway googu ñu bëgg a jaxase géejaway nan ko bàyyi géejaway mënuñu ko jaxase ñu ko yàq tuuti nañ ci yàqu ci ndax ay kilifa dañ fee jaar dañ fee ñaan géejaway dañ koo léemu barki Serigne Bamba Mbakke da ngeen a xamul rek ku xam ay xale ngeen ay xale ngeen ma ne la loolu bis mu wax jotee dinaa ko wax damaa bëgg damaa bëgg Géejawaay ku yebu ne ko jàkk te bañ koo piis piis na xamul tax sëñ Abdou Karim fii la dëkkoon daara jaa ngi fi te ay kilifa yu baax ñoo fi ñoo fi jaar ñoo fi ñaan kon nag nan bàyyi affaire yu jaxase ñuy def diggante Lac la Guiers ak Balla Gaye ñoo bokk baay ñoo bokk seen Casamance am na leen yoo xam du débat yu am na yoo xam du débat nan bàyyi ci débat boobu chaque jour ñu ciy wax débat du ciw débat nan bàyyi débat boobu est-ce que Balla Gaye mooy kii déranger parce que saa bu daanee coow bari ci lamb loolu yàgg na parce mooy leen ampleur waaw waaw mooy ampleur te la wax Balla Gaye la ndaanaan la borom jom la Lac de Guiers champion la Lac de Guiers benn defet la la fii ay champion dafa ana guy gi champion la lu ne def na ko fi ana Alioune Seye 2 ana ñoom Marley ana ñoom Amadou Sène Junior xale yooyu xoolal xale yi génn ana caatu Daouda Fall ana ñoom ñaabu ndax xale yi ñëw ñoom digal ñoom Youssou Ndour ñoom Gakko ñoom fils de Balla Jackson waaw am na combat non waaw am na turandoo non di booy may ma tuuti booy. Euh, waaw bëri waa loolu la xam non Moussa daana bëri woon na ba am ñetti combat ñetti victoire waaye dafa changé turam tuddee ma ko. tuddee ma boppam day sànn voilà champion la waaw non non gis nga non waxul lu am gis nga ma xamal la benn affaire uh-huh. maa ngi nuyu sëñ Fallou Ndiaye raxma bu baax dëkk fii ci Guédiawaye maa ngi koy ziar bu baax sëñ Fallou Ndiaye raxma maa ngi koy ziar bu baax euh, di di di nuyu sama papa sëñ Ibrahima Kunta ca Ndiassane sama papa sama xarit yàlla na ko fi yàlla yàggal sëñ Ibrahima Kunta ca Ndiassane Mouhamed ca Pire ah. maa ngi koy ziar bu wér a wér a wér Mouhamed ca Saloum Mouhamed ca maa ngi koy ziar Mouhamed ca Saloum maa ngi koy ziar bu baax a baax donc nag maa ngi koy ziar bu baax comprendre nga sëñ Samba Ndour koy ziar sëñ Cissé mu sëñ Babacar ñoom ñëpp maa ngi leen ziar bu baaxa baax waaye gis nga li ma lay xamal te bariwul ñi nga xam ne dañoo jël décision di bëgg a jaxase géejaway hmm. damaa bëgg ñu arrêté géejaway kenn mën koo jaxase fekkee tey dangaa bëre bëree hmm. ba wóolootoo sa bopp hmm. xam ni làmb ji mënatu la neex ci yow nga bëgg yor sa micro commencé di wax non c'est que nag non du caaxaan dafay bari léegi gis ay xale ndaw <laughs> war a liggéey war a dem entraîné ji chaque jour ñu nekk ci micro yi di wax loolu baaxul ba man may sax dañ may jéem a yàq léegi waaye man ñu maa yàq ndax ku ci mës a am di nga yëkkat sa téléphone woo ma su ma amul lu ma la jox tamit dinaa la taxawu kon nag euh, nan may waxal man sama yu baax te bañ maa xasar man ñoom ñëpp laa yéen a jàmm xale yëpp laa yéen a tey jii soo fi nekkee di xasar say mag wala say di mag say wax sa mag ay mag yu ñaaw nga am bis yëkkat sa téléphone woo ma est-ce que la ñëwal du ma ko ñemee kenn daanu ci mbër waaw waaw waaw vraiment kenn daanu ci kenn bébé Elton combat bu mujj bii maa ko yóbbu stade yàlla may ko ndam yàlla suturaal ma. may ko ndam waaw. sama kanam su ma rakk la. Sékou musul am victoire. loo wa vraiment sama rakk la. mais moom moo génnee nag. waaw non la ñoom ñaar ay gayn la. sama xarit ma koy jël. gaynam la xam nga damaa bëgg ñoom nan jox xale yi seen mag yi cër. nan jox seen mag yi cër. nan jox seen mag yi cër. ku ci bëgg a dem wala bëgg ñu dégg la. na nga jox sa mag cër wala sa bë bës yàgg na nga jox sa mag yi loolu mooy àdduna. waaye nekk fii di wax lu ñaaw. ah loolu baaxul di xas sa mag ñi di tuutal sa gox di yëkkati woon gox loolu baaxul fii ñëpp amay xarit man bëri champion yëpp samay xarit lan ñëpp ma jox cër waaye ku ciy bërëg sama rak wala ngay bërëg doomu Géejawaay ah. doo am dara mi ngi fi mi ngi ñëw léegi mi ngi ñëw léegi ah. fii la fanaan mi ngi ñëw mi ngi ñëw léegi léegi mi ngi ñëw léegi gis nga ma xamale benn affaire yàlla na ni yàlla defal jàmm Sénégal yàlla na fi jàmm sax nan bàyyi waxante yu ñaaw nan bàyyi waxante yu ñaaw gis nga weer yu ñu nekk weeru safar la nañuy waxante yu baax nañ waxante yu baax te bàyyi waxante lu ñaaw àdduna amul solo fii loo fi gis dafay jeex bugguma kuy téye sa gox di tuural sa gox di yëkkati goxu jàmbur noo mel sa goxo ko def ndax soo amee bis ba nga ñëpp teewal la soo amee bis ba nga ñëpp teewal kon nag dee leen wax lu baax ñun drapeau bi moo ñu ñor uh-huh. zone bula bi moo ñu ñor. zone bula bi moo ñor. gis nga yi ku ci am bis ni la taxawoo. 54 ASC yi nekk biir Géejawaay ku ci am bis ñu la. dooleel la. kon nag nañuy waxantal rafet. tabaay yàqante bi. àdduna amul solo. na amul solo. mais armée du Géejawaay dégg naa da ngeen koy waaw. incha allah rabi dangaa jënd bàmmeel booy wuy ma rek su ma koy jëndoo nga non non bu dugg foofu bu dugg foofu waaw waaw waaw non li muy wax nii ay jënd ba waaw yàlla na yéex non déglu ma waaw jar na sóor chaque jour ñoo chaque jour ñoo ngi koy sóor saa yu nu xëyee da nga koy sóor waaw dama lay wax saa yu nu xëyee ñoo ngi koy sóor bul ma jaxase àdduna waaw dama lay wax rek saa fii fii ma toog rek fii ma toog rek mën naa jékki-jékki jóge fii rak ñaanal leen ma jàmm waaye te ñaanal leen ma jàmm amiin yaa rabbana yàlla defal jàmm géejawaay yàlla na fi jàmm sax bàyyi leen wax bu ñaaw bi booy liiru jaan kuy empereur géejawaay liiru jaan mais empereur liiru jaan mais ah, am nga am xanaa li ah. mi ngi lay tontu kay loolu am mi ngi lay tontu am loolu am sa xol neexul maa ngi nuyu ñëpp du nuyu diaspora bépp képp kuy bëggee liiru jaan maa ngi lay ziar di la bëggee mooy Ndiaye directeur Serigne Mala maa ngi ko ñoom